actualité ñëw tamit ak li xew ci réew mi ak li ak li yëngal réew mi euh, mu mel ne que yaay tegal Ada Fass euh, barki démb li xew biir esam am tànk Tamba Masor bu toll ni kii tegal Ada Fass ndax yow sa diggante ak Ada Fass am na communication bi est-ce mu ngi daw comme tey seq ngeen loo xam ne yaa ngi koy conseil Ada defee wal ni Ada waxee wal ni est-ce que est am na sa diggante Ada Ada moom dafa am sama kers dafa am kers si man dama koy envoyé message sax balaa mu may liir day yàgg na parce que dafay am kers sama diggante ak moom par rapport que yeneen tëggkat yi ak mbër yi nu ñuy nu ñuy mel maa moom meluñu noonu cent pour cent mais lu mais dafa am kers si man waaw xanaa doo géwél la ankay ah waaw mais loolu kersa foofu kersa moo fa war su am parce que xam nga géwél dafa am lu tax ñu naan géwél rôlam ci bu ko xamee kersa waru fa am yaa ngi dégg wax bi mhm. tey yow war nga mën a ci aada te ko ruqu wax ak moom ne ko aada doxalee wal nii defee wal nii nii laa bëgg mu affaire yi amee nii laa bëgg mu defee parce que am nga cir boobu ci moom waaw mais lolu loolu yoon la muy am sa diggante moom dëgg la man dama kay woo téléphone su defee dara nii ma koy woo téléphone di wax moom mooy dégg naa li ngay waxtaan moom ma soor naa si bàyyi xel mais comme ma moom dañoo rusante ma parce que xam nga la moo moom doon nekkoon doo école football. ah ja moom football. du doon góol. barke yàlla rus wi foo lay jógee maanaam nit ki boo rek. Mhm. am na moment yoo xamante ne boo leen fa tollatee rek da ngeen di rusante am na ñoo xam ne fii fii Fass ñu bëri ñoo foowandoo defandoo lépp defandoo fu ne di demandoo fu ne mais après. ruus dafa amati suñu diggante suñu biir ba ku romb moromam sax day sëgg loolu tamit xam nga loolu tamit day jugé day jugé loolu moo tax ma Ada Fass dafa daf ma ruus kersa ki day daw sama diggante mais su ma waree wax dëgg dama koy woo téléphone dëkk mbër lii ak lii ak lii mu ne ma dégg naa la tàmbal mhm. bu ma soxlaa ne ma mbër ma tàmbal masoor lii ak lii ak lii ak lii mais bu nekk woon maanaam fu ñu jot jaar jo jot na maa moom ñu jëkki-jëkki rek di bëree di dóorante di kaf di def ay affaire di ko dégg ñu ne ah kii de moo tëgg katam de ah nice mais maam moom daa am foo xamante ne dañ fa jot a jaar xam nga foo wondoo kersa boobu am suñu diggante maam moom. mais mais mais loolu nangul naa la ko mais dama ne liggéey liggéey la barki démb Mamadou Mbaye bu Bekaay Mbaye bi làmb ji jeexee ku ne dégg na ni mu waxee. Mhm. magi géwél yi ba ci suñu papa ñoom Bekaay Mbaye ba ci magi magi géwél yu bëri dañoo nangu ne Ada Fass amul ay conseil mhm. ñii ne amul ñuy waxtaan ak moom xam nga Ada Fass maanaam ba ci ba ci géwél yi ànd ak moom di di ko tuusal sax war nañ di waxtaan ak moom ci ni muy doxalee mais tey su fekkee ne tey loolu noonu tey Ada da ko manqué tey yow mi nga xam ne jege nga ko am cër ci moom war nga mun a tamit di waxtaan ak moom ci ci façon doxalinam. du dëgg mais tey dañoo gis ne bëri na nekk xale bu ndaw di daan di daanu yàlla dogal dugg na cour des mhm. mu def loo xamante ne ni tey. bokk na ci liy yàq làmbam mooy def na loo xam ne loi bi bañ na ko seen seen ko te instant bii nii ko ko jaraloon ba loolu yàqal ko loolu tey mënu ko defaral ba loolu baaxaat aj nañ ko un an un an yi yi mu war a toog te du bëre soo amee loo koy wax pour en cas beneen combat ak su yàlla dogalee ñu aji ko jàmm ak salaam lan lay doon sa message. waaw sama message euh, xam lan doon instant yi ñuy toll nii dañ ko aj mu gën a fonk entraînement am gën a góorgóorlu gën a xam ne ne fu mu war a ye fu mu instant nii li nekk si kanamam da ko nar a ëpp doole lenn rek moo fi sës gën a sonk fonk entraînement am gën a amal ñëpp a jàmm di nemmeeku ñëpp ndax sa gox bi nga dëkk boo amalee ñëpp a jàmm rek am nga lépp waaw te aada xale la mun naa ne xelu xale bee ko yóbbee nii mun naa ne moom loolu noonu mu def noonu njëkkeewu ko fi te mujjeewu ko fi am na ay mbër yoo xamante ne pour nga bëgg dara fa nga def dara te munu préparer ay millions si làmb benn bés benn maanaam ay minutes ba la ko yàqal. da nga bëgg a wax ne yow da nga d'accord si li mu def. non d'accord ma ko d'accord ma mais daa am loo xamante ne da ko laaj pour nga def ko pour am fi nga bëgg a ye ah bëgg yegg. waaw mais yoon dafa mbëri ko fi jito amul benn mbër bu ci bu ci mos a moom ni mu doxalee waaw waaw déglu ma moo tax ma lay wax ne ada xale la mun naa ne moo tax ne la mun ne mun naa ne ne xelu xale ko yóbbu noonu parce que daa am fu mu teg bëtam mu mu jaral ko mu mu doxalee noonu mais du yoon du yoon de nangu naa du yoon mais dafa am fu mu teg bëtam te tamit mu nu combat am génne ay millions def ko si def ko si ba pare du ko perte noonu te xale la dafa nekk si yoonam nañ ko ñaanal yàlla jàppale ko ndax xelam yëpp da ko def si bëre waaw na ko ñaañ ko ñaanal yàlla rek waa CNG li ñuy def nii xale aada xale la rek ñu yërëm ko jàppale ko ajiwaat affaire yi waaw aada aada wax dëgg yàlla dafa bokk ci làmbu Euh, suñ ko mënee dawal a yërmande tamit nañ ko dawala a yërmande xam ne deratu xale bi moo yëngu parce que dëgg la euh, euh, li gëwélam wax tamit nangul naa ko parce que tamit xale moom des fois am na fu dimension am di toll xel ma duy ñëw waaw doole jaa fay nekk ak deret ba nañ ko dimbale ñu ñu dawalal ko compréhension mais dañoo gis diggante Ada fas tamit Liss Ndiago coow li bari coow li bari coow li bari te làmb booleegu leen lan lan moo lan moo waral coow li ak lu indi coow li loolu yàlla bu ko tuddee rek day am combat boobu seen combat combat boobu yàlla bu ko tuddee rek kenn si dara yam yàlla bu ko tuddul nag du am. mais est-ce que lamb boole na mais Liss Ndiago instant yii nii su ma sañoon du laalagu sax ay Liss. mooy jàmm gën ne nañu lamb boole na leen de. non man. parce que ku bëri gaw ma ne. te sos tamit bëri naa gi. waaw kamoo daan. sosa guy gi bëri nañ. waaw kamoo daan guy gee daan. ah guy daan léegi guy guy kan moo daan. guy gi aada ko daan. bu daanee guy gi après ñu jox ko aada ñu xool <laughs> wax laa wax de. mais mais mais waa Fass tamit avant may egsi dafa am ñaari message yuñ ma jox ne naa la ko wax yow pour nga jàllale ko. Uh-huh. nani ñu saa mbër di bëree ñoom dañuy jooy kaaraange lii jot a xew avant combat ak sursi waa Fass ñu ngi koy ñaawlu. ñu ngi koy méttalu ñu ngi koy naqarlu ñu ne nag buñ soñoon am tànk géwélam yow message bi nga jàllale ko ci Ada Fass ba mu jot ci ba ëllëg su amatee combat mu mun a waxtaan ak ay booyam waxtaan ak ay supporteram li ñuy def ni teg ko ci yoon mooy wàllu violence bi am nangu téléphone yi génn jam yi fii paaka yi fii mais booy am na ku ne ma sax bu fekkoon na dañ koy defee feneen sax mu mu mu tane mais seen biir koñ ci buntu koñ bi lañ koy defee ñu koy ñaawlu lool am tànk géwlu Ada Fass loolu nan nga ko loolu moom dafa ñaaw ndax euh, combat moo kii moo Zarko. Mhm. ba ñuy dem 2S. Mhm. am na benn booy boo xamante ne boo maa ngi si convoi bi yor sama machine. Mhm. am benn booy boo xamante ne daa gis benn femme rek këf saagam maa ko dàq ji ba récupéré saag bi. Oh. ah maa ko dàq ji sama machine. boo maa ngi yor 250 machine 250 ma dàq ji ko ba jël saag fekk ko fa jokk ko ba mu ngi jooy mu ngi jógee banque. Oh. mais booy di def yooyu yëpp dëkkuñu fi. mais lan moo tax man waa xaaral rek lan moo tax man géwél man bu mu dégg sama micro barki démb dama bégg dama dégg booy bi sar ko moom tamit mu taxaw ne booy def booy def loolu dëkkuñu dëkkuñu grave mais mais nu nu mu demee noonu kan lañ yàpp ba war mun a dëkk feneen ñëw ci ko ñu jàmbur di ko salteel waalee xam nga la moo la moo garaaw man munu ma dëkk fii waaw may këf kat mooy sa mooy këf téléphone jàmm. naan maa ngi këf sama koñ dañ may jàpp. Ah, ndax dañuy xam ne ne kii mat kii këf nii mataar la te fii la dëkk. mais ma mais ñi ma tasel ñoom ñu wax ma loolu nan nañu booy koñ bi ñoo koy def booy dëkk fii di këf ñoo koy def. xam nga loolu maanaam. ñoom nan nañu booy dañuy jël loo xamante ne ni duñ xàmmee janj ak joor. non loolu moom loolu moom dama koy bañ loolu moom loolu moom dama koy bañ nangu naa lépp mais loolu moom dama koy bañ aada dafa njaboot booy jël dëkkuñu faas. déglu ma ah dafa njaboot. mais booy def loolu dëkkuñu faas. dëkkuñu faas. waa faas a ngi lay seetaan de te àdduna ngi lay seetaan. barke yonent bi laa booy di def noonu dëkk dëkkuñu faat faas te man booy bu faas bu ma gis ngay def loolu ñeme naa xeex ak yow ëpp ñu ma fit gënuñu ma woyu gënuñu ma bànn dafa fekk ne daam loo xamante ne dama fa dama fa bëgg a yegg. non mais mais non non non xaaral yegg foofu. voilà xanaa kon waa Fass ay ragal la fi dëkk. mais man man man naka laay bëggee aada Fass di dooleel aada Fass di jàppale aada Fass am boo yoo xam ne dëkkuñu Fass ñu war a mun a ñëw sama koñ di salte man ma taxaw di seetaan loolu. waaw Fass bu ñu nee fii dañ fiy salte rek dama may jaaxal nga xam ne dama may jaaxal bu dee dañuy gé dañoo génn am na salte mais Fass fii ñii ñu ne ne dañuy dañuy jël fii téléphone wala sàcc fi dama may jaaxal ndax booy. am na waa ITRA bi dañuy bañ loolu. mais ñaari femme danañ ma ñoom seen suuru combat yi passé. waaw dañoo romb seen yoon newu ci. waa ñoom fa ñoom fa lañ dëkk. ah loolu lañ ma wax. waa ñoom fa lañ dëkk. li nga maanaam xam nga romb daal lañ. xamala moo garaaw. ñoom daal dañ doon romb lañ wax xamala moo garaaw. digga <laughs> nit dëkkal nit ki fu mu dëkkul moo bare si jamono ñu toll gii jamono ñu toll nii. ah kaama dul la moo gën a gaaw kaama may la si jamono googu lañu ne. kaama dul la gañ. <laughs> kaama fen la moo gën a gaaw kaama may la te yàlla xam na ne nit ki si looy wax waxala sa diggante yàlla sunu boroom dëgg mooy njëkk te dëgg mooy mujj déggoolu ma la xanaa booy fas bu ma gis ngay def loolu ñeme naa xeex ak yow ndax ay làmba joolaa fii fii la ma fekk. te man du ma tux cigarette làmb joolaa fii la ma fekk ah, fi la ma fek fi fi dama daan tëb miir dama daan xeex ba daw sama erkat yi yii kon nga xam ne booy maa ëpp ñu ma fit fii sàll la woon dansin ku amul fit daawoo fi tere ne bëccëg gi sax gars yi police cooy dañ fi daan taxaw fi nii fii ñu nga gis ni mhm. mhm. léegi dañ ko tëj bu dee fit ëpp ko maa leen ëpp fit foofu mais dafa am am na moment yoo xamante ne dootoo ko toll. responsable la te ay xale ñoo nekk sama ginnaaw am ñu nekk sama ginnaaw ay royukaay la man royukaay la mm-hmm. te ñoom dama war a joxe bon exemple boo xamante ne ñoom carrément dañuy jaar si yoon boobu mais du joxe bon loo xamante ne ñoom dañ fay dem ma mën du ma leen a tere. mais mais lan ngay wax ñi nga xamante ni ñoo koy faral di def saabu combat Ada Fass amee combat comme que dëkkuñu fi. comme dëkkuñu fi. waaw wala boog wala boog waa Fass yi nga xamante ni ñoom tamit dañuy fekkee loolu di seetaan. xam la laa la laa lay xamal. képp koo xamante ne na nga jóg pour jàppale mbër te yàlla rek a tax mm-hmm. nga jóg jàppale ko si fair play mm-hmm. ñu dem ak si jàmm mm-hmm. ñëw ak si jàmm mais fekkee na nga jóg pour ay wala pour sàcce téléphone xam nga nga defee ko feneen mais pas sunu mbër ngay instant ni moom dañuy yàqal mbër ndax dañ naan mbëru aara aarafas buy bëree yàqamte wu ñoo xam ne parce que ak te fekk noo di su moom aada lañu yàqal yàqaluñ seen bopp de mais moom moo tax ma sànq ma ne la aada dafa njaboot sànq moo tax ma ne la aada dafa njaboot fu nekk la fu waay di jóge mhm. di tamit di di joxe tamit message mhm. waa Pout waaw mhm. ndax laa demee tabaski bi laa doon tëggee soirée am benn zil brown bu foofu ñoom tamit dañuy bàyyi seen ité yëpp aada buy bëri dañuy jël ay kaar di ñëw di seen jakarta di ko dooleel waa Pout ndax ñoomo message boobu ñoom dañuy ñëw si si man naa ma aada dañ ko bëgg te bëgg naa tamit aada après da wax ak moom pour mu ñëw pour mu dem seeti leen ndax ku la yëg mhm. da nga koy yëg mhm. moom mun na bañ a xam loolu mhm. ah te ñi ñeen ko koy defal léegi comme ñoom wax nañ ma ko dama ko koy yeggee aada pour mu dem seeti leen waaw waa Pout seen message yegg na géwélam dina ko yeggee aada man dinaa gunge géwélam man ak moom ak aada ñu ñëw ba Pout seet si ay sopem ak ay xaritam yi nga xamante ne ñu ngi Pout di ko bëggee aada aada ndakaaru la aada Sénégal la aada ko bëgg di ko bëggee xale bu ndaw la ne ci yoonam nañ ko jàppale te yàlla rek tax